condition arbitre mo mhm. dajé ki nga xamanteni modi euh num tuti way lak da guerre da guerre dan ko condition arbitre mhm. ñu na tafa ñu na ñu na boy ñaa amul sans poids lourd mhm. kon yaakar na mu nek lo xamanteni jima ci ko xamanteni yow la dag tafaati mu la daan kooku daan nako ci ay waxtu ci ay segontu jël bu reuy bu amul ben wéranté mhm. kon yaakaar naa kooku nga ñew di bëreeg mom dina nek combat ba xawu difficile mhm. boy booy ñaa papaam dafa gënoon dinañ ko daan ci 5 minutes mhm. boy ñaa génn na 5 10 minutes yu papaam may dafa bëri mom da koy may 2 minutes wala 1 minute mu daan ko mais bañ ko déggaatee dernier open par exemple bu mu def ñene mom moom na da nga xamanteni modi di 5 minutes yu mu ko mayon parce que dafa bëgg lo bala bëre lo ko te lu mu bëgg ci combat bi pour amateur content lajul 1 minute lajul 2 minutes kon yaakaar naa mu nek combat wax ne combat bu am solo la mais boy ñaa boo koy natt dama ne bu ko natt si ñaari combat yi mujjee parce que ki nga xamanteni modi tafatine ak ki nga xamne modi lag de guerre de pied buñ ko tégal képp ku ko tégal boy ñaa am nga problème mhm. boy ñaa bépp mbeur bu mu taxaw xaar dang koy ki de moy cité ñoo ñuy wax ci politique mu soppi ko bépp mbeur mu taxaw xaar boy ñaa boy ñaa bu ñëwé koku day day daam digënté mok jox dafa ñëw ñak fofu da ko xaar xaar yi métti après jox finalement mujj ko plaqué xoolal ma xolal ma xolal aali mi xam ne moom rek lay aali <laughs> ndaanaa la du ngaaga def ma neex kon yaakaar naane lamb ju am solo la boy ñaa xalé la mom mo soxla moom ma war a dem attaqué Balla du ma ko bëree ak moom luy am moo xam ne am na warta taxul déglu Balla Gaye Balla bëreekat la ñëwal nga woo ko ci xeex jaxase ko nga dem mais est-ce que tey Boy Niang euh, li ñu waxee ne Balla ñëpp nee nañ euh, jox nañ déjà victoire bi kii di Balla te ku ne Balla xam ko ci mën a bëree malgré nag mi ngi jëm mag euh, doole jafa nekkoon nekkatu fi mais est-ce que tey Boy Niang bu jengee tuuti wala bu jàppee ne booy Niang màgget la rek day ñëw saax-saaxee est-ce que bu saax-saaxee combat bi tamit du ko ñàkk non Boy Niang bu saax saaxee combat mën na am problème parce que Balla donte lu muy mag mag mag bëreekat la. Mhm. Balla ndaanal dafa mën a bëree. boo xoolee du ma la wax sànq dernier combat Boy Niang yi mujj xool dernier combat Balla Gaye yi. Mhm. demee dañoo xaw a am tuuti fu ñu bokkee. Mhm. Boy Niang boo xoolee combat moo Gris Bordeaux bi Boy Niang ba at da doon xeex yow Balla Gaye daw jëli la bëreeg yow mais Balla ba muy song Gris Bordeaux di ko daan dafa sukk ñaari bëtu oomi ñu ne Balla mënta taxaw dafa jéem mag ñu ne da doon nga xool Balla Gaye ak Bombardier teg la tànk si digg stade mm-hmm. Balla Gaye bu demee ba bu demee ba taxaw def noonu nga xam ne Balla amatul mm-hmm. Balla da doon ñëw arbitre prix mu may la deux minutes bëri yow daan la ko nga xool dernier combat Boy Niang mujj ak dernier combat Balla Gaye mujj yi kon di nga natt ne Boy Niang poids dafa amoon so dafa xaw a mitu moom mm-hmm. nga natt ne Balla Gaye combat yi mujjee dafa xaw a jéem mag mais te tere attention Balla bëreekat la té boy papa boy ñaan néna na ku gëna a neex daan ci lamb ji moy Balla Gaye de mën and ci ak mom ci benn côté né ma ban côté la lutax tax lu tax bi ci ta ba xam nga né fi da bari supporter yi Balla Gaye de ci bëree bi ci ta parce que ba xam mané fi ba xam nga né da bari supporter yu Balla Gaye de parce que Balla de 2 kat la té kat bëreekat kat mo koy daan mhm. nit kuy taxaw di àndeer di rasso ko fi bu suba do ko daan moy mhm. dernier combat yam joggé Balla bu ñëw wo boy ñaan ci bëree nañ bëree teg teggi boy ñaan mën na ko daan jël bu rëy dem wacc ko dimanche la la wax de le premier janvier Boy Niang mën na ko daan jël bu rëy dem wacc ko Boy Niang bu naa ko jàpp ne Balla mag la même bëree contre Gris Bordeaux bëree ko contre ma Bombardier kon Balla jeexal na dina nax boppam hmm. Balla bu nga gis keroog géej waaye open press ba mu indi forme indi état si meekoogul mais lu gis dal na suñu xel xam nañ ne Balla ma amoon 2010 2012 Balla moom moo ñëwaat hmm. lekk làmb ju neex de. làmb mag la ak xale léegi dafa xew grand petit. noonu la ko xale yi di waxee. baaru sa gel bi tamit grand et petit la. mën naa nekk si te jërëjëf waaw si te jërëjëf. tàggat loolu nekkoon débat bi di leen tàggatoo di leen bu baax a baax. Sénégal 5 ak yéen ana Thia. ay Thia mbokki téléspectateurs yi. waaw dama xam Matar Couture moo ma sànca dama ñëwoon bi ma seet di jënd ah. mu xam ne maa ngi ñëw dama war a génn moo may sorole ma léegi dama teew si dëkk dara léegi Matar kontaan naa borom parcelle koo ñëwalut barke alxuraan baaxul mooy ñëwal Macky Sall waaw ah, léegi nañ continuer li xam ne moo di lion bi suñu lion bi xam ne sànq moo doon wax ci Adji Sarr ñu du mayaat yi ñëwaat si la plateau Sénégal 5 toogal de bul jóg si ta toogal ay ca Ali mayaat ñu lien bi ñu ñëwaat sur ñaari bira moo amoon ñaar sa baay ñu ngi ko doon wax bira rasta dafa rasta woon temps bi muy topp lamb